sigil te weytoo madru yi tuub nan ci yow bu wér te bul faale ka wuy see ka su fekkoon da ngay laaj carte say candidat wiiw na yaawat ña daawoote ña santal dayab cente yaa fi gën amul ku lay werente te ka nga yoo ci Cheikh Moustapha santal dayob cant yaa fi gën amul ku lay werante te ka ngaayoo ci Moustapha tëddal nang nelaw yaa Moustapha ñépp mokk nañ amul kenn ku lay xiirooti luum nan ci Moustapha tëddal nang nelaw yaa Moustapha ñépp mokk nañ amul kenn ku lay xiirooti luum nan ci Mustafa wala yaara yum may yaay borom xaas ni Mustafa Muhammadu Abdallahi ax nii bi Mustafa ña daa mat seen gëñ foq nañ sa bawkat yi seen gémmiñ yi saañ nañ ko Mustafa ñadaa jabarak ñadaa xaatima ñadaa luxus yalax nañu seen xam-xam ya far toppi mustawa si gil te weytoo madru yi tuub nan ci yow bu wér te bul faale ka wuy see ka far jekki mustawa su fekkoon da ngay laaj carte say candidat wiiw la yawat ña daawoote ña daawaate mustawa ñi ngay woo nee nañu waawaaw nda Seex Bamba yaay donoom ku koy sikki sakaareere Seex di Mustawa ci waaw mbaa ci waawaaw mbaa ci woowoo nga tollu tey ku ñëw ree ku jëkki jooy nda yaa doon Mustawa wolof nee na woote bi yàlla mu gën bu nit di def defoo kenn deful yàllaay borom kun fa mustawa wolof nee ku am xel nangu dem téléphone nelaw ku am xel na ànd ak dem wuy ji mustawa la Seex Bamba noon waa réew mi wooteloo ku dib dof na tuug ni xel wa dew fekk mustawa sëriñ bamba tuubal nan la ñëw nan bi jaayikum te salaaw dootu nu dellu wel nan ci Mustafa ndax ganaar ak nenam yaak siqiya cuuja kulluhum borom gamba baa moom naaw tal nu Mustafa Cheikh Mustafa mi maay mujjisaatam fardil lamiñ wa koy waxal wa kallama rabbul harsi musa bi mustafa lu jin njaaga bambay njaag te mooy njiin fa mustafa ku fay nag jikkoom war naa liggéeyal si mustafa cheikh mustafa gee junganeel waaju ak si duy ku mar bay xondooj yaa tey ma wal fa mustafa ndoxom maa ngi wër tuuba batum aynu rahmatin waxay nuuri daa dem leen dëkkee ki sayqi mustafa ma nga yeesalaa tuuba di tajdiidi diinihi yërëm ndaw ña magal mag ña moo doon mustafa di sayloo jigéen ña denculoo góor ña kulluhum di leen san di leen seetal na ngeen santu Moustapha lu waay soxla boo fay dem muy faj loola saatan tabeek topp yàlla diine moo sax fa Moustapha kila am médaay fi saayirin bahda baatinin inaayatuhu wilaayati Moustapha kilay Mbàkke waa ko keeg lu gaag ndaam di kër ndeyam ña doon kaañi kankaan ba koleeraam fa mustawa kuloo wasra boo dex gaa ngi fengat to dootu daay sëriñ bi di barul juudi nuur leen fa mustafa wala yastawil barani asbun sarabo wa milxun ujaajun bul xiyaas nit ci mustafa ولا يستوي لهما كلام إلهنا فأنت بشير يو سيخا عبد ولا يستوي لهما كلام إلهنا فأنت بشير يو سيخا عبد يا مالك الملك sigil te weytoo madru yi tuub nan ci yow bu wér te bul faale ka wuy seek ka farjëkki Moustapha su fekkoon da ngay laaj carte say candidat wiiw ne yaa wat ña daawoo ña daawaate Moustapha